loolu jàmbaar dina ci jël ay mesures jël ci ay ay dispositions am loolu moom mbëri du ñu ëpp fula. Mm-hmm. lan lañ mën a xaaraat ci jàmbaar production balaa le premier mai. non nañ préparé journée premier mai bi mais dina am beneen face to face après Ramadan bi. Mm-hmm. après koor gi dina am beneen face to face boo xam ne incha allah Dakar lay nekk mooy nekk dernier face to face bi après mbëri préparé seen open press incha allah. Mm-hmm. Franc Bombardier joxal ma Franc wala Franc yor na Thier. ngeen préparé ñàkkul ne am na lu ngeen mën a laaj bombardier am na lu ngeen mën a laaj Franc loolu dinañ ci ñëw léegi bombardier ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax dama la fekkoon saal boobu yaa ngi préparé sa combat ak Balla Gaye suma juumul wala sa combat ak Tapha man laaj la ci xale yu bare bare bare nga wax ci ba tudd Franc bii nii mais am na beneen wax boobu ma waxoon jëluma benn combat pour xaalis combat bu may bëri sama dignité sama honneur mom lay mom lay mom lay jital dama bëgg sortir par la grande porte tay nak nga jël adversaire bo xamante da nga nga jël mbeur ñu ni ya man mais tay da nga jël adversaire ñu ni mom mo la man lool noonu lu mi def ci yow bombardé waaw Lamine dama lay nuyuwaat rek li ma waxon tay la ko gën wax parce que euh bi may cité ñi nga xamanteni suba man nañu tey lamb gi mom trop daf si bokk dëgg la boo xoolee man 2009 maa njëkk a wax ni dañu war a def grand contre petit mooy yéegal yéegal maanaam ubbi si kaw. renforcer pour ñu renforcer. logique boobu si laa nekk ba léegi jëluma ko jëluma franc mi waaw pour am dara dara lu ma fay ñaan lu ma fanaan ay dafa bëgg lu sedd su ma bëggoon lu sedd nee naa la dama combat yooyu tànn di ko jël mais sama carrière yëpp combat yu xat rek laa bëre hmm. adversaire yi gën a tar si laa bëre kon nak euh Mansour tëgg na combat bu neex bu neex a neex neex te combat bi bëgguma ci wax ju bari combat bi. combat bi wax ju bari bëgguma ko ci dama bëgg ci jëf lu bari parce que xamna limay xaar. xam nga li lay xaar mais xam nga adversaire bi xam lu muy bari xamna ko bu baax yag na ko siwul xamna ko bu baax a baax a baax moo may la xamna limay xaar soxlo ma wax ju bari dama ci bëgg jëf ju bari waaw kon fran waajal ndax bés bi kon bésu jëf la le premier. mais dégg nga sa adversaire moo ko wax combat bi soxlawu ci wax ju bari mais jëf la ci bëgg fa am lu bëgg a wane waat dafa mel. waaw Lamine ñu nuyuwaat ñëpp rek xam nga ñëpp jàmm ñaan képp koo xam ne yaa ngi ñëw fii rek di ñibbiwaat yàlla suñu borom teg la ci yoonu jàmm. amiin amiin. mais Bombardier mooy comme ni ko Mansour waxee moom loolu na ko ñëpp waxee muy Bombardier nit ko am respect nit ko am fulla ci boppam xam nga muy sportif aussi. tey damay am loo xam dama koy seede ci moom quoi parce que kii lu nit yi di wax référence dëgg la. dëgg sama combat bi paas damay voyagé wàcc aéroport bi Orly ma ci benn tubaab contrôle bi ndeysaan mu ne ma gars yi quoi ma ñëw ma ñëw ci moom mu xool sama kii bi après mu ne ma ba xam war ma ko photo Bombardier ba xam-xam ko bay tey loolu image bu rafet moo ko may xam nga lu nice moo ko may moo tax xam nga ñun ñëpp war nañu roy ci waa ji waaw waaw mais maa ngi koy ñaar jàmm bu baax mais ci li mu wax noonu Lamine loolu boo ko defee dina ma neex de dina ma joie trop dina ma neex vraiment man képp ku ma xam xam ne man bëgguma lu nooy suma live man lay métti rek fu ak fayda jom dem ñibbi dafa am lu ma tàmbal gars yi te sama bët bi daa am fu ma ko teg instant bi nag wax ci jaru muy bëri ndax dafa am lu ne ci yoon bi te xam naa ne mooy gën a xat mooy gën a métti comme boog foog ma boosté dem sama yoon kon ko bi yow da nga ñew daf man da nga ñew pour jël revanche parce que ki dug na parcel waaw xam nga ku ko xamul mais wa parcel xam nañ ko. waaw do ba bëgge nek roi des arènes ba mu ñëwee. da ko koŋ ne ko delul mata mhm. ko lami loolu deug la. mais ki dina ko wax lo xamne mbeur mus ko wax. dina ko may 30 secondes 30 secondes la lay may jambar so ñewul ma dal la ci 30 secondes moy une minute man ma la ko wax bu lo nexé ñu xatim légui ñu bind. loolu mom mhm lima ma waxoon say mag u morom la lay wax mhm. nga sakkanal say batterie mhm. man duma ko ñi appelé temps mhm. man duma ko ñaan ay une minute ak deux minutes loolu mom yaakaar na ni yow suñu combat bar bi siflet dañuy daje parce que nima gisé ngay wax ni do delu ginaaw non loolu mom bu am jambar lo ci lo ci hésité wala duma la arrière kon amna naa ni dinañ seetaan combat bu neex 30 secondes la lay wax de 30 secondes ñu balancement des bras. déggoo li ma la wax 30 secondes yeneen 30 secondes yi muy ñaata. la déggoo li ma la wax mu immi ma daan ko. incha allah man du ma du ma ku ñuy appal. dinaa la appal yow sax te yow sax da may bëgg a xam déggu ma yow da may bëgg a yem. dafa amul yooyu de fii nguur la de. Eh. yaa ko moom nag mais. tous du mujj fenn. lu leer la la. man man man dama yow xam nga yow. lu tax ma taxulee loolu waaw. yow boo toogee naan ma dama lay ay 30 secondes ak ay minutes. Your big body Mama. <laughs> yaakaar naa ne Lamine comme ni ñu koy waxee rek yaakaar naa ñoom ñaar comme ni mu koy waxee ñaari jàmbaar lañ Franc ay kombaam yàgg kii kombaam mas ta yàgg kon yaakaar naa li ñu waxante gëm naa ne ba génne seen diggante loolu la ñuy def mais Franc yaakaar naa ki nga jël di la Lamine wax sànq am na bari nañu mu freiné à commençant par seen tête de file mooy le roi des arènes actuel Modou Lo gis nga fi mu jaar ak bala Gaye jaar fa ak ay mbër yu bare bare bare bare nekk mbër boo xam ne maanaam amatul tey lu muy prouvé nga jël ko fi nga ko jëlee nii est-ce que da gis li mu génne moo tax nga yaakaar ne boo ñëwee da ngay jaar foofu wala sa bos day gën a gaaw wala. yow déggoo li ma wax waxaat ko waroon naa ko teel a dab. waroon nga koo teel a dab. su ma ko waaw foofu maanaam lépp moo fa nekkoon lépp lépp fay nekk. comprendre foofu la doon gën a neexee mais instant bi waaw bu fi jeexee du neexee noonu. pour yow daa nooy nii quoi. non ah kii kenn waxatu ko. ah. weer laa la wax. fi ko demee nii daa nooy. non dafa nooy. ah non. non da nga xamul li nga xam bu baax dama la seetaan. dama la topp li may wax waxee waxee nga ko nit yi waxuma pour bëggal nit yi wala pour lu leen neex kon dama la seetaan bu ñu bëree ba xam naa ba mën nga jaar loolu sax. parce que doomu dafa naan xale nga. non li moo baax ah. yow instant bi naa si quoi. ba ma jël na jël dama lay. yow instant bi kon lépp jàmm. dama instant bi lépp jàmm. ma ne instant bi lépp jàmm. lépp falaaw lépp falaaw. Franc da nga yaakaar yàpp da nga bëgg doole fi mu nekk nii. waaw kat waaw. lu ne sama kanam maa ko moom fu mu toll nii boo bëggee dégg-dégg. ah yàlla yàlla dafal jàmm rek. lu ne sa kanam maa ko moom. Bombardier. yow xale lay wax rek. waaye waxu mag ngay wax mais nag combat yi combat yi bëree pour ma sa wax def na ko de moom Franc mi. waxu mag laa lay wax. waaw waxu xale laay wax. te sport xale la favoriser. man damaa ràmm de. da ràmm xam nga ràmm. waaye man lépp laa def jàmbaar. leer laa la wax lépp laa def. mais adversaire lépp laa def. ragaloo ko ci xeex franc. ngeen xeex. waaw nga 30 secondes laa la wax nii man nii rek maa ngi bëre combat bi nii instant bi nii. yaa ngi bëre nii nii. nii rek gis naa li ah? ma nii. gis nga buntu yi. li ma def. ah yooyu da ngay wax rek. doo ko def sama coach. dinaa ko maa ngi koy nuyu bu baax course lato course mooy toogal seize maa ngi dinaa ko ne jëlal trente secondes wala ki lay toogal seize ma ne ko jëlal trente secondes ba pare yow li kii la ñu yow li ñu gëm la yow kan man ba bés ba nga xam ne gëm naa xool gëmu ko gëmoo loolu trente secondes stratégie ngay a def non non même pas man dama doxee noonu jàmbaar déedéet non ñëpp xam nañ loolu man dama doxee doxal duma ku ñuy appal maa la koy wax léegi laa ñëpp dama wuy ma saay duma ku doxee noonu instant bi nii rek maa ngi bëre combat bi nii rek am na lu may gis nii nii rek am na lu may am na lu may gis non sama grand la mënoo ko bañ mënoo ko bañ kan non lii nga bëgg xam naa li nga bëgg lii nga bëgg lii laa lay tegal. góos nga bëgg góos nga koy tegal góos rek la bëgg. ah li bëre ñu teg góos yëpp yaa ma gën a xam lii la bëgg dinaa ko tegal. góos bi waaw. Ah. Bombardier la moo tax ma def lay tegal góos. man li ma daan say pieds doigts ñëpp sax. lii la bëgg lii lii lii wuy ma. Ah. li ma daan seen Edouard ñëw fuuf combat yi li muy wax këpp maanaam combat yi ngeen di waxtaane yëpp ah? combat yi ngeen di waxtaane yëpp ay xam nga ko euh, ginnaaw loolu nag il faut ñu nuyu sunu monsieur le maire sa Issa Sall di ko woo si combat bi am na ci solo de Lamine Seck nuyu sama sister boobu sama doom amit Collé Thiandoum mais wuyul wuyul wuyul nuyoo bi dafa teel dégg nuyoo sa wax ñu war a wax wuyu leen Thier Thier Franc Thier waaw maa ngi lay nuyu di la siyaar maa ngi lay fay bu baax Bombardier maa ngi lay siyaar Mansour Ba maa ngi lay nuyu di la ziar première question. waaw su papa ber góor a mu ne Mansour Ba la moo la may fit ba tey première mai bi mu dalee topp lam ba léegi mu si gis abis mel nii la moo la may euh, li nga xam te mooy xalaat ba nga taxawal bis bu mel nii ci première mai muy fait travail waaw nee na mosul. kii xam na bu baax. booy waa Mbour xam ngeen ma rek la leen rek wuyu ma wuyu ma grand bi nag mun naa am lu may xool ci moom mais xam ngeen ma sa booy. sa booy xam leen damay wàccaat ci terrain bi de Mansour wéy de. waaw eh, Thier. wax ni rek. Euh, li tax ñu choisir le premier mais ah. bu ñu dem CNG dafa fekk woon date yi dafa jeex. donc date bu ñu proposé woon le 18 août la. te man dama gis ni booy contract ak ay nit. da ngay jéem a fexe ñu bëre ci nu mu teelee. donc moom moo tax le premier mai nekk fête du travail. ñu jël le premier mai bi ci woo amateur yëpp parce que loolu du risque. Ah. parce que boo gisee plateau bi ñu fi nekk ñëpp ay mbër yu am ginnaaw lañ. donc le premier mai dina nekk fête bi nga xamante ne làmb ñëpp dinañ kontaan incha allah. waaw ah, bàyyi ko ko dégg loolu euh, Lamine sama pré sama première question ci Franc Franc la moo tax nga xool Bombardier mu nekk deux fois roi des arènes daan Modou Lo 2015 daan mbër bu ne nga xool ko ni ko 30 secondes laa la may da nga jàpp ni da koo mën a dund wala qu'est-ce qu'il y a wala da nga jàpp yaa ko daa ko bëri. mën naa ko te xale laa. Ah. te tamit am na ay mag yu ne suma ginnaaw ah. ñu may teg ci kóor di ma conseil mais nag li ma taxawee nii nii mooy li ma ko waxoon léegi rek daaw li ma gis nii léegi. te buñ ñu wàcce woon fii léegi moo woon ko. ay fay 30 secondes yi ay fay. lu leer laa la wax. Oh. si lu leer la wax. ok Bombardier maa ngi lay nuyu di la siyaar. la moo tax tey Franc la jàpp na yow 30 secondes mu taxali koog yow lu mu yaakaar ci yow. xam nga maa ngi dégg léegi ma naan ay mag yu nekk sama ginnaaw di ma conseillé xam nga am na ñoo xam ne seen waxu signature. dañuy wax pour tester la pour xol ba xam fan nga tollu mais man dépassé la fofu man duma ko ku ñuy appelé 30 secondes néna ko lo lo bu sax daf ma yeb man duma ko ku ñuy appelé 30 secondes. Ah, bu ma la yebee rek bu bu ma la yebee wala dafa mo mënee tamit nga def li ngay def tamit. lolu dina la ko def le premier. wa yow def ko légui tamit ay dama la yeb li nga taxaw boy bu dama la ko dama la yeb. léegi moom du baax bu du woon caabi ba légui wacc nga. mu ne bu du woon caabi ba légui wacc nga. ñu ma ut leen moo tax tax bu caabi kon. Aja, ce que kan RDV la radio Dunia Franc nuyu naa la ah nuyu suñu nijaay bombardier yi bu wër a wër première question bi dama koy jox Franc. eh grand attends grand kii di son nijaay la sama nijaay la moom xam na moom xam na man xam naa. Ah, kon ok d' accord xam sa mbër. maa nekkoon booy bu ndaw bi doon bind. kon tey yàlla dogal nañu teewaat fi dañ koy nuyu ñun xamante nañu bu baax a baax. macha allah léegi première question bi dama la koy jox Franc yow. Bombardier gis nañ ci carrière mbër yi ñu ne techniquement ñoo ko gën a fort mbër yi nga xamante ne dañu ne ci bëreel ñoom ñoo ko dàq bëre fuuf ñoom ñëpp da leen daan à commencer par Zallo suñu nit Papa dafa Gueye ñëw ba ci Modou ba ci Balla Gaye ñi nga xamante ne bëre lañ favoriser ñëpp daf leen daan indi leen problème te yow la majeure part ñëpp dañu ne ci bëre bi yow yaay favori bi loolu loo ciy tontu. ci bëre bi maay favori bi. waaw non bëgguma ko ne ci favori ci bëre bi xeex bi laa doon favori. waaw baax na par bi suuf euh, bomb Franc dañoo dégg ci ay kàddoom saa su ne li muy wax mooy day ñëw daan la yóbbu la retraite dafa mel ni dafa jàpp ne da nga nekk fin de carrière foofu lay bëreewee ci yow ci jeunesse la ko teg ak force. kii waxu xale lay wax rek. waaw xale laa moom dëgg yàlla su ma ko waxee. waaw waxu xale lay wax. nee naa la bii sax question yi ñoo tegloo ni mais bëgguma si woon sa wax ju bari. Ah, waaw foog nga wax nag dama bëgg dama bëgg wax dañ dañu fa wax pour ñu wax. waaw foog nga wax nag bu ma sañoon sax du ma wax ju bari. jëf ji mooy ëpp wax. Hmm. waaw comme ñu ngi lay ñaan jàmm ba bés ba rek incha allah. woy waat leen fële am na koy wax ak yéen fële. maa lay siyaar Babacar di siyaar ñi fi teew ñëpp. Modou Mbaye numéro 2 litre 221. benn question la amoon pour Bombardier dafa bëri ak Reug Reug combat bi jeex ñu gis combat bi ni mu demee ñu si bëri ne combat bi dafa yomb am nañu si sax ñu wax ni ne Bombardier dafa combine combat bi. ndax mën nañoo séntu ci combat bii di ñëw Bombardier wane ne moom dese na ci làmb loolu laa lay laaj. non loolu mu ngi sama ginnaaw amatuma lu ma si wax su combat xas nekk sama ginnaaw du ma si waxati lu bëri mais xam naa ni am na combat yoo xamante ni bu ma si kenn jugé ma kenn bàyyi bu si bu ma bàyyi xel ay wax laa la wax combat bii combat ma fonk la. li nekk sama ginnaaw nag mu ngi sama ginnaaw dama si wax waa si keneen bés waaw jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah euh, dama am benn question pour Franc waaw jërëjëf dama am benn question pour Franc euh, dama ko avertiroon ne ko mu ngi jëm ci combat boo xamante ne combat bu metti la parce que Franc dañu gis ci weer yi ñu weesu muy tëkku benn mbër muy rëg-rëg tey nag rëg-rëg am na combat Franc am combat diggante bu Bombardier ma gis nag démb ku jege rek rek mu assuré ma ñu bombardier day daan franc franc lu muy wax ci loolu. waaw boos kuy daan moom man maay daan man maay bëre man maay daan maay ñibbi incha allah. est que jàppoo ni combat bi dinañ la ci sot dina nekk. dinañ la sot ci komba bii nii. non loolu garaawul amul problème comme sot am na <laughs> ñun pour ñu loolu de boos leer laa la wax dafa dëgër jërëjëf merci aja kon amin am waaw moom ko question bi da xam naa bareetul fi mu nekk nii parce que moom wax na li mu wax Bombardier tontu mais mais dañuy profité xam nga di nuyu waa Parcelles Assainies yëpp un ba vingt dégguma eh, Bombardier nga ne vraiment kontaan nañ ci ñoom daan nga ne mbokk mbokk njaago mi ñoo koy wax la ah. non non non non non non xaw ko ah kii li mu wax garaaw na def aussi tamit maa ngi nuyu sama mbokku jaaw yëpp di nuyu sama mbokku séeréer yi xam nga maa ngi nuyu waa Joal Fadiouth ku ci mel ni suma grand. aywa Franc kay toog ak waa Ndiop di nuyu Dari Camara xam nga. baax na dama nga toog léegi. kay toog madame toog. waaw kay toog madame toog dama toog. Bombardier yow eh, toog kay eh, toog. non foog ma nuyu. waaw euh, koo xam ni. léegi dama bëgg dama bëgg maa ngi daawul la muy Papa Sow. waaw parce que bi may soog a ñëw. dafa fekk mu nekk si bagage yi. Mm-hmm. mais Papa Sow daf si liggéey rôle bu am solo. kon papa ñu ngi lay jaajëfal bu baax di nuyu aussi sama ménager Alioune Gueye dafa am lu ko tënk moo tax ñëwul di ko tënk moom xam na xam naa ñu ngi koy ñaanal yàlla oyofal ko jaajëf. aywa Mansour. waaw comme ni mu ko waxee rek Lamine. xel mooy fatu ndax Pa Sow suñu grand la suñu idole la suñu frère la suñu royukaay la comprendre nga di ko ñaanal jàmm. jarul sax ne fii ay di wax mais foog nga wax ko nit yi dégg ko ak aussi tamit ñu ngi nuyu président muy Modou Lo ay ñoom Gora Sock yëpp maa ngi leen nuyu baax ay ñoom Mbathio ko jar naa ji déglu leen ma jën bu baax góoru may baa ba wóyle leen ma sama waaji sama waaji sama waaji dama ngi ci gàcce alaaji imam Dramé sa maam ee eh, baayu sàmba ba mu ndaw bilaa yaay bareey sàmba yaa de nga waan yaay yaa de nga njaay Bijoona ay bari bari leen doy lu nit jaag yay ñaar baasur balaay wayal samba yaa dangan jaay Bijoona sekk sekk neegi baaw meng meng yaa fi ngeen këyeen yaa nga ca bëggee ñegeen yeen jaare géej way leen leen ma njaga caatu bosot lay woo alaaji sàmba bala riwee sa baay dabi yaayu góor a beeya ka bosa wa alim saar dabi yaayu sa njaay sama waaji sama waaji alaaji sàmba ba mooy sa baay tey la sàmba yaa daga a njaay sàmba yaa daga njaay baba saw kii door na doon dugal waaw di wax ne rek Lamine ñu ngi remercier ñëpp di remercier waa Mbour ci accueil bi di remercier nag waa staffu jàmbaar production yëpp ñoom sama grand papa Sow Assane Ndiaye Mamour Thioune grand Alioune Sarr ñoom Pape Gora ñoom assurance Papa Gueye vraiment Serigne Dame bi fi nekkul ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier bu baax ñoom Pape Kébé di remercier ñoom Gora Mbaxal ak di remercier sama sister ya, bu baha baha baax di remercier aussi sama copain ñoom ada ñi andala àndala sama boy nyom Cheikh Ndiaye ak nyom Aline Gueye ñu bàyyi sen lépp ñëw fi déplacé wu ànd ak man maa ngi leen di remercier bu baax sama grand Mamour Thioune l'infatigable mo grand Alioune Sar, bu baha a baax maa ngi leen di nuyu bu baha di nuyu nak sama papa maam père ba bu baax di nuyu sama ya di leen ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal bépp wajur di nuyu bu baha baha baax euh, wa mouvement des jambar du Sénégal Euh, di sargal jigéen ñi bu baax ci seen journée bu ñu di leen ñaanal jàmm maa ngi nuyu bu baax Iba gis nañ sa liggéey suba ba tey yaa ngi fi vraiment di nuyu aussi équipe bu Bill bu installé lii yëpp vraiment c'est quelque chose de très joli plateau bi rafet na taaru na trop macha allah di la félicité bu baax di la wax ci kaw ci kanam di remercier Lamine bu baax a baax di remercier aussi Ibrahima Faye Beuz ci num ñuy taxawoo bu baax conseil et tout la presse comme ni avons ko waxee woon maa ngi leen remercier bu baax gis nañ déplacement bi c'était pas évident di leen sant di leen gërëm di remercier le service d'ordre di remercier ñoom euh, commandant Thioune sama père Cham as euh, c'est manager mom dama koy faté parce que mom biir jambar la bok di sante bu baax a baax di remercier Bombardier Franc c'est un téway di remercier ñom Youssou Ndour vraiment gis nañ lepp di nuyu sama copain Mbaye Diop Safara vraiment di ko wax ne moom ku ñuy ku ñuy ku ñuy suivre la mom kuy neexal làmb la ñu koy nuyu bu baaxa baax di la ñaanal jaamu bu baax ni la wax ci kaw ci karam yalla baax na quoi. ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di jox ñep rendez-vous di di di jox ñep rendez-vous après le ramadan inshallah ci benen face to face inshallah à Dakar di sant ñep di gëreem gërëm ñëpp incha bo Aïcha ya euh, wo bu baax monsieur le maire. balaa ngay woote sax. boo muy sax Issa Sall. noo gisee combat Siteu ak Modou Lo. waaw mais combat bu combat bu neex la parce que waa jàmbaar dañuy di encouragé xam nga wax nga ko léegi. Mhm. presque deux ans lañ def def événement yu mag. man fierté laay am pour tey pour bëre structure structures yu mel nii. vraiment ay jeunes la ñu am ambition. te uh-huh. tëgg ay ay yenn tur yi day tax structure bi gën a gën a jëm mm. kon ñu ngi leen di encouragé di leen wax di leen félicité di woo sunu sunu monsieur le maire sax Issa Sall. di nuyu aussi waa Bombardier sunu mbër maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu général Diouf di ko ndokkale aussi di ko félicité si ndawam bi am démb ak waa groupe daaj ñu leen di déggee bu baax a baax a baax di nuyu aussi sàmpe fi yëpp di leen jaajëfal comme ni ñu ko waxee léegi ku ne bi ngay ñëw oto nga jël ñu leen di ñaanal ñëpp dellu si jàmm ginnaaw signature bi yooyu yëpp ay ay nit la ñu jàmm la ñuy yenente donc kii sama adversaire la dama ko yéene jàmm ba le premier. kon yàlla nañu dellu si jàmm ñëpp dellu seen kër si jàmm. Mansour Diop Amane Mbaye maa ngi laa ziar baax di nuyu Habib Kane Thiès démb dañu daje ñu waxtaan si combat bi non seulement waxuma sax billet yi waxuma jàppale mais dama bëgg euh, Mansour dama bëgg Habib Kane bu Thiès mu dugal loxoom si combat bi en tant que sponsor en tant que parrain kon Habib Kane sa message ñëw na jaajëf. waaw di wax nag xel mooy Fatou. maa ngi remercier aussi sama grand Modja mu déplacé wu ñëw ba fii teew di frère ñoom Kéba ñoom ñëpp di nuyu sama copain yi ñoom euh, Youssou Koli ñu nekk Ziguinchor bu baax sama nijaay Sini Fall maa ngi wax aussi di nuyu waa BNB Fitness Ziguinchor di wax ni képp ko bëgg a entraîner foofu incha allah BNB Fitness fa euh, salle bu moderne la nekk Ziguinchor en face université Assane Seck maa ngi ci maa ngi leen nuyu bu baax a baax. Franc. comme du ko gars yi defee rek xam ñu nuyu encore une fois sama mbokku jaago yëpp xam nga ñu woo ci combat bi ñëw jàpp ci ku ci mel ni grand Étienne maa ngi koy woo bu baax a baax aussi tamit ñuy ngi woo président monsieur Amadou Ba koy woo vraiment moom du loxoom du jug si ñëw jàppale ñu di tamit Moussa si président CPA bu port di ko woo bu baax mu ñëw jàpp ci di woo suma gars yi nekk ci diaspora bi xam nga ku ci mel ni ñoom Boy Pulo ñoom Dia xam nga ak euh, ñoom Badouzat yi Formose Mendy doomu nday Olivier maa ngi koy woo bu baax a baax xam nga mu ñëw jàpp ci combat bi xam nga di nuyu aussi suma waa famille sama waa kër xam nga maa ngi leen di ziar bu baax a baax sama waa koñ aussi waa koñu Ndiago maa ngi leen di woo parcelle 1 ba 26. waa déggoo Cambérène bàyyiwuma kenn di leen wax yéen ñëpp ngeen ñëw jàpp ci combat aussi waa Fayaako maa ngi leen di woo waa Jirna xam nga. ñëpp ñëw jàpp ci combat bi ku ci mel ni waa Jilaas ak jurub waaw kontaan naa bu baax a baax di nuyu tamit waa Mbour bu baax a baax di nuyu encore une fois sama mbokk ñaar ak ñi ma àndal ku ci mel ni Yves Yves Ndiago maa koy nuyu ak euh, Cheikh Wague maa koy nuyu ak ku ci mel ni Jo Aline ak Odo Boy Fall maa koy nuyu di nuyu sama koñ ñëpp. waa Koñ Diakhoune jërëjëf kontaan nañ ci bu baax a baax rendez-vous baa ngi noonu le premier mai la. incha allah arène nationale ñu ci ànd ak waa production